Damba Xalla tey lan moo ci teewaay ci bés bi. waaw ñoo ngi lay suñu teewaay du dara lu dul. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci leen bi sant Serigne Touba ak Cheikh Rafal. caat euh, day suñu xarit. di suñu doomu day di suñu frère. lu ñu xew ne mu teew ji. kon bu wootee bis bu mel nii ci Mbàkke Bawol ma tëdd di nelaw loolu day garaaw loolu ci man mënuma nelaw sonn naa ci programme laa jóge te suba ci programme laa jëm waaye. faaw ma jóg ñëw ndax caat suma xarit la te nit ku baax la loolu moo dama ma deew kon sa diggante ak caat lu yàgg la waaw non loolu boobu ay xale lañ ay xale yu ndaw boobu woyul woyu ma day liggéey mécanicien ancien may defari pono ñu daan ànd petit ba grand kon bu xewlee rek ñëw teew la li mën a def ndax caat sama diggante ak moom démb la est mën na laa xaar ci est mën na laa xaar ci seen bi waaw du ñàkk da leen dugg yéeg doxal loolu ma mënul ñàkk mënul ñàkk faaw mu am incha allah voilà léegi artiste nga ñu gis temps yi affaire u Idrissa Gana Gueye du yaa ngi koy bu nekk koo xam ni bañ na sol benn euh, moyen bi ndax couleur boo xam ni euh, wax na ni borom ñaari tur la lu ni mel en tant que artiste porte de voix yan kàddu ci nga ci sànni. waaw loolu moom liñ ciy mën a wax mooy nit ki lu sa diine nangu ak lu mu bañ war nga koo mën a xàmmee loo mën a doon ak koo mën a doon ak foo mën a ne. àdduna léppay jeex ba mu des yàlla kon nag li ma gëm man sa diina li mu bañ bu la dee teg baat di la leen sax jarul def sa diina nag li nga xam ne loolu la loolu la bëgg bu la doon tër di la rendi it jëf ko yàlla fay la yonent bi fay la sa pays gën laa naw sa réew gën laa naw gën laa fonk gën laa jox cër waaye nit moom àdduna wala alal wala succès waru laa jaral ngay def dara loo xamante ni bii sa diina nanguwu ko man daal loolu laa mën a wax. théâtre Vérité bu Mbàkke moom loolu foo miin la est na la fee xaar ci euh, ci wér yi di ñëw. waaw fii moom yàgg naa ko def gis a fermé yàgg naa ko def gis a fermé décembre mujj maa ngi waaj lu doy waar ak waa artiste Mbàkke yëpp nañ ma xaar incha allah man ak artiste Mbàkke yëpp ñoo ngi waaj dëggkat fecckat dansukat bongo maan woykat ak ñëpp. lu garaaw fii incha allah yàggatul. lañ ci gisee pour Gueweul Mbacke Bawol. ma si teewaat ci bisu Ndaa Cekk li nga xam ne dañ koy amal fii ci Mbacke Théâtre bi. waaw mais Thiat sunu rakk la sunu lépp la Mbacke gi la dalee baax bu ñëwee di mel nii ñun ñi dëkk war nañoo mën a ñëw jàppale ko ci bis ñu ñëw tey ko ci guddi gi loolu. warteef ndax ku xam Thiat Seck xam foofu lay gisee ndax damay organise muy jóge Dakar di ñëw di ma jàppale kon su ñëwee Mbàkke war naa koo mën a ñëw dooleel. kon la. loolu loolu ba muy xale la mën naa ne ci ñi ko yar ci laa bokk ñuy déggante lii boole wuñu dafa yàgg du tey booba dara xewagul amagul dara mënagul dara. tey nag neex na kenn ku ci ne yaa ngi xëcc mais moom xam na man xam naa yàlla xam na